mboy bu ne dexe moom la séeréer ganoon fonk ndax pour ñoom séeréer euh, d du jeex takk nga ne non non dee nga jóge chambre A dem chambre B dégg nga jóge chambre A nga dem chambre B boo defee riit yi ki nga bàyyi sa ginnaaw ma A man nga jokkoo moom di waxtaan ak moom mooy tuur ci dee séeréer dañu la ne eh, nit ki deewul dafa tukki moo tax mu ñuy wax dee dafa am woy yu bari yoon ci loolu kurupa xoole rogoole kurupa waaju baax woo nañu ko yàlla moo ko woo jannombal nomele rogo nome jannombal bijinu xar bi lemul boppam yàlla moo ko maanaam bakkan du rey boppam mais yàlla moo lay soxla ne kaay Gayuse gayena gen malola, gayuse gayena malola. ne gasel bi de daanu na moromam yaa ngi jooy mooy ku dégg euh, euh, xon waa jalwa ñoo waa loola xon waa jalwa ñoo waa loola ñi dee ñu nga bekk ree fa ñu dem waaye ñi ñii dund ñu ngi jooy di mitin lu dëgg ba kut paye maaraya maaraya ba kut paye maaraya yaay xone kaara yaay xone kaara fooy dem fooy dem yaay kut fay fooy dem ne sama yaay defu dafa tukki gan la woon fii dafa ñibbi gan la woon fii dafa ñibbi lu may jox ñu jàppandee ne euh, du destruction total mais changement d'état jóge ci lii dem ci la moo tax rit yi séeréer doon def yëpp loolu séeréer dëj la gënoon fonk fekkee ne comme les pharaons bu nit ki dee dañu rey nag bu mag yàq ci béggu kër gi malambonneke jegiim o fartuma farfaroog seen farfaroog e, mboolo bu toll ni amul kenn ku ku ma jàppale ku ma faral yàlla rek laa faral kooku mooy waa Thiaw ñi sant Thiaw naafiyo njokko njal asalaamaaleykum man la Tamsir Diouf maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku si nekk seen tur seen sant di nuyu du képp koo xam ne doomi séeréer nga doomi sénégambien nga mbaa doomi africain la foo mun a nekk rek si àddina ma ngi la di la sant bés bi nag xam ngeen ne kilifa gu tedd ku ñoo wax professeur Issa Laye Thiaw moom génne na àddina on the foog naa de tenth of uh, tenth of september two thousand and seventeen si la génne àddina ak bu septembre bu ñëw bu ñëw ñëw si nii si weeri on the tenth of si si bu ñëw dugg si nii si la bu mu génne àddina mu ngi ñëw si ñetti at suba moom kilifa gu tedd googu noonu nag moom la ñoo defal tribute te man nag man lu ma lifit nag man yàgg naa di diisoo moom yàgg naa xam yàgg naa xam mbiram wante lu ma gën a tax sama diisoo moom bala moo a àddina muy sama liggéey bu ma doon def fii nii si Angleterre di te foog naa 2008 jula June ou July 2008 si la sanc organisation bu ñëw wax The Sierra Resource Centre The Sierra Resource Centre mooy the centre de ressources sérieuse si si si français si laa ko sanc fii si Angleterre si London loolu nag. moo ma gën a xax nag ni te liggéey bi nga xam ne moom lañ dee jàpp di def si Seereer Resource Centre ni te dañ dee def ay preserve Seereer culture di documentation and preservation of Seereer culture mooy documenter ak preserver lépp loo xam ne dafa jaaru si wadi si mbiri ah, cosaani Seereer dañ ko dee garder di ko denca di ko lifi ne ko préserver di ko tasaare si ñi nga xam ne dañu réer ci ñi nga aw Sénégal bi foo any anyone rek ku ku bëgg a xam mbiri cosaani séeréer da ngaa ñëw ñu wax la ban ressource nga war a am pour mën ngaa ban ressources moo available pour nga mun koo dem seeti so si loolu liggéey boobu noonu moo gën a tax nag ma gën ma njëkk xam ma gën a xam kii naka professeur Issa Laye Thiaw ni te bu ma seetabee Seereer Resource Centre Leafy naka lañ koy test um, even bindoo set up naa ko in 2008 in foog naa in 2013 ñu te defoon def balaa loolu sax Leafy naka amoon naa ay books si nga xam ne ak ay ay articles yi nga xam ne professeur Issa Laye Thiaw bindoon na ko so ma ne ah lii de moom lu important la foog ñu war ko garder foog foog ñu war see taxaw so loolu moom moo tax ma eh, xam liggéeyam liggéeyi professeur Issa Laye Thiaw su at boobu su boobu passé at yu si fiw at yu si topp tuuti at yu tuuti rek bu si toppa may gëm di read benn ah, benn article foog naa faa ku ñu ah, bindakati sénégalais sénégambien ku ñoo wax Fatou Camara moom moo ko bindoon foog naa so li fi naka lañ koy teel sa am article boobu noonu dafa naa fa du interview Issa Laye Thiaw si bi ci article boobu noonu mu gis fa ne professeur Issa Laye Thiaw mu ngi bugg a taxawal benn ah, bureau or sort of organisation bu ñoo wax temple of initiative women lu pal loolu daal moom mooy lifin la daal sort of école la daal oo foo xam ne ku bëgg a jàng cosaani séeréer traditional medicine séeréer naka la si maam yi daan fajee naka lay lifin naka lépp loo xam ne dafa daj daj si cosaani séeréer si askani séeréer mun ngaa def fu noonu jàpp jànge ko fu noonu mu ridee loolu mu ne ah waaye lii yëpp de moom baax na lii am na solo man nag xamoon ma la wax si njëlbéen xamoon naa professeur Issa Reck di te woon naa ak li fi liggéeyam liggéeyam bu bari yoo xam ne def na ko bu ma ma xam xam naa ko ni te maa ko bindal maa ko bindal biographie boobu mu nekk si si Wikipédia si français Wikipédia français ak Wikipédia English ni te tàmbu maa ngi doon def maa ngi doon maa ngi doon act as editor si Wikipédia wante loolu yàgg na so li naka lañ koy te sama ne ah wante lii lu mu kii lu kilifa gi lu mu bëgg a sànca lu baax la. so at yooyu nag ndax maa ngi gën a maa ngi nekk di topp pour try pour find pour xam naka lañ naka lañ mën a getting contact naka lañ mën a contact yi Ismaila Jaw pour ma dimbale ko si li fi naka loo xam lépp lu lii nii projet tam mi nga xam ne dafa am njëriñ torop di te xam naa ne projet boobu daal moom su demee ba taxaw moom li fi naka benn séeréer la tudd réer so li fi naka lañ ko wante ba su ma try ma lu ma def rek mënu ma am mënu mënu maa am contact am ma ne ma gisee nag man ma tegee ma tegeelu xalaat boobu noonu saay ma nekk di continuer suñu liggéey bi nga xam ne moom la liggéey si Seereer soixante so lifin nga xamee ne foog naa in years few years after 2013 ñu set up suñ website Seereer Resource Centre website bi xam nga ñu ngi found the organisation in 2008 wante set up bi website bi woon ba 2013 am na lifin bu moo demee noonu rek so bu ñu ko set up bee nag ki ñu am lifin nag ñu am benn pra am naka si website bi mi am lifin naka lañ ko koy test euh, forum daal képp koo xam ne Sénégal mi nga oo séeréer nga ko ku bëgg ku soppa si am ci saani séeréer rek mun ngaa jóg foofu noonu rek ci ak yeneen ñu bokk si groupe bi foofu noonu so bu loolu bu loolu lifi ne 2013 July ah, June 2000 July 2013 ci lañ ko ci lañ set up website bi benn si kenn ku ku register si suñ website ku ñu ooyee Demba Sane mi register so su mu register rek obviously si si suñu suñ communicate si man maa moom ñu kuñ communicate rek ñu off offline online rather si ay senante ay email ak yu noonu si lañ gën a xam ne miinante bi am na benn bés nag ñuy wax si mbiri cosaan ci mbiri professeur Issa lay Thiaw mu ne ma xam na ko mu ne ma mu ne ma xam na professeur Issa Laye Thiaw ma ne ko da nga xam professeur Issa Laye Thiaw mu ne ma waaw kañ xam naa ko kañ professeur Issa Laye suma lifin la soto suma oncle la suma lifin la daal dama maa ko di jàpp jàppale sax di ko dimbale si li am si yenn liggéey comme ni ak ak secretary oo di ko typal yenn oo du ko def du ko lu mu ñuul ma ne defal ko ma ne daa ma ne ko professeur Issa Laye Thiaw at ci at ci at ci maa ngi try pour get in contact ak moom pour contacter ko mun a xam pour li fi naka pour mun a koo dimbale si programme programme bu if naka am mi nga xam ne moom laa gisoon years moom ko bind fu noonu ma ne ko dama try lu nekk pour mun a get in contact moom nit xam naa ko bu yàgga si liggéeyam liggéeyam bind si bind xam si bind bind bindam si laa si laa ko xamee nit te man liggéey bu ma dee def si Seereer Resource Centre mu ne ma xay mu ne ma kooku xam naa ko di mu ne ma évier ne foog naa bu yàggul si fan yi sax maa ngi ko jógee këram xaw ma lan ma ne ko kon lu maa def ma ne ko dinaa ñu naa ngeen fay ni sa borom ne waroon naa dem senegal sax wane ab pour projet yi nga xam ne waroon nañ koo jëlee foofu noonu pour dem di interview ay kilifa yoo xam ne dugg si dëkk séeréer yëpp di interview kilifa yoo xam ne xam nañ cosaani séeréer xam nañ askani séeréer xam lépp loo xam ne dafa jaadu si séeréer including traditional séeréer religion yu suy membre doonoon ñu ko indi di ko garder bala moo réer soo ba ne ko mën dinaa ñëw Sénégal 2014 tout décembre 2014 2015 bi si communication boobu na Demba Seen nag bii xëy even though si internet lañ jàpp ci ci internet lañ xamante siis bay ba tey bési bési yàlla te ma toog di waxtaan ak yow mu ngi mel ni man maa Demba Seen yàgg yu xëy naka dañ dañ bokk te li fi naka lañ koy teesa wala bokk lañ wante li fi naka lañ koy teesa dañ jàppante saa yu ma demee Sénégal si moom lay dal saa yu ñëwee saa yu ñëwee Gambie si moom si man lay dal ñu jàpp juboo nekk xarit kooku mun naa ne jëm si du suma xarit du suma collègue sax du suma xarit te MC du suma collègue du suma xarit MC suma famille la soo anyway ci décembre boobu noonu décembre 2014 ma gàddu gàddaay yéexee naka génn génn Angleterre dem Gambie comme nu ma dee def rek dem Gambie ba pare continuer foofu noonu saa yi ma demee sa Gambie fa ma dem Sénégal su ma dem jóge Gambie dem senegal pour dem def projet bi nga xam ne defi naka pour liggéey bi ñoo def séeréer de soixante pour dem di interview kilifa yi joo xam ne rek xam si cosaani séeréer pour ñu indi ko garder ko denc ko koo tasaare ko defee defee naka séeréer yi xam seen cosaan ak seen askan ak yooyu. so December boobu noonu December 2014 du dem December 2014 January 2015. ñu dem nag man man man nekk si kër Demba Seen foofu naka si moom laa dee daal am na even am na famille am Sénégal am na film yu bari Sénégal wante saa yi may demee Sénégal si moom laa dee daal moom la dee daal lii moo wan a di naka naka lañ bokkee naka lañ jàppante bokkee benn comme famille lañ so léegi naka lañ koy di on the 8 of December mu ko fàtte mukk ñu dem 8 of December 2015 ñu jógee Dakar dem si dem si fi kër yom dem yi dem jógee de nag ah, fële ne la kër kër Demba Seen dem si pour dem fekk wax wax wax waxtaan nañu woon ak kii professeur Issa Thiaw ne ko bés nangam bii nañ ñëw la su ñuy dem foofu noonu a gis Issa professeur Issa Thiaw on the eight of this the eight of first time a toog moom face to ñu mën a wax wante kilifa gi baax baax boo xam ne li fi naka lañ ko jàppamee ni ko man doomam la ma jàpp ko comme ni ma suma papa la suma nijaay la xam nga tubaab daf dee wax ne li fi naka lañ koy tee sax um, sometimes it's not good to meet your um, your idol because sometimes um, they may disappoint you comme pour yéen ko rek su tra traducte rek traducte mooy trans euh, ko si wolof rek mooy li fi naka moom suma wolof setul nag wante naa try mooy li fi euh, naka lañ koy tee sax yenn yi sa sa jàmbaar ki nga jël dee teg ko si kaw daal. yéenay du dee baax nga war koo gis ni te soo ko gisee daf laa disappointé wante dama la bëgg a wax ne lifin naka kooku noonu professeur Issa Laye Thiaw nu ma foogoon ne moom la mel ak nu ñu waxtaanee si lifin ci téléphone ak yooyu noonu yëpp exact noonu la mel baax barke bëgge bëgg bëgg a nit jàppal ma mel ni comme doomam la lifin naka lañ koy ñu def interview bu baree bare moom foog fa aawasan aawasan aawasan aawas ñu ngi nekk di interview pal kilifa gi nii joxewul benn discomfort mu ngi bixi naka generous generous with his time generous with his knowledge amul benn discomfort wax ne li naka xale yi géteen ngeen te mu ngi kontaan li fi def bugg a li fi yëf yi naka vien bi génne moom dafa wax wax wax na ma ko sax wax na wax na ko yoon yu bari sax si interview ko benn yoon rajo gi fii nii Sérère Resource Center Sérère rajo Sérère rajo man maa ko sànca maa ngi ko sànca 2015 ñu ngi ko def si force en broadcast 2016 soo boobu noonu mooy exactement boobu mooy time boobu noonu sax ñuy pare pour yi fi naka pour broadcast ko si Sérère rajo so anyway li fi naka man kilifa gi jàppama jàppañu jàppal ñu liggéey xam ne lu mu lu ñu def li li fi la ah, moom tamit te moom du fi dem na fu mu nekk mag la li fi naka bu kontaan bi bëgg a dee ne ah comme ni gis naa ay doomi séeréer yi nga xam ne ñoom tam ñu ngi si pare pour téye kon nag tuddi cosaan bi du réer so kii mooy professeur Essa Laye Thiaw wante professeur Essa Laye Thiaw na nekkul ne li fi naka yàlla may na ko xam-xam gu baax a baax a baax xabeyi na ko xam-xam gu bari ba pare yëpp lum xam-xam bu mu am daf ko pour taay pour lifin nag ak pour ko pour doomi séeréer bi képp koo xam ne doomi séeréer nga baa ne doo du ñëw doomi séeréer sax doomi Sénégal yi doomi africain képp koo xam ne sa maam africain la doom doomi sa réer ñu see def ñu see loolu ñoo wax rek cosaani séeréer cosaani africain la cosaani Sénégambien la te cosaani Sénégambien mu cosaani africain la the same thing with any what you call it, any other um, um, uh, ethnic group within um, um, the, African continent. So li fi naka leen koy tesa moom pan africaniste la ni te li fi naka programme bi nga xam ne moom la moom moo ko nu jóg mooy de se li fi naka am du ñu wax temple of temple of initiated women bii ñi nga xam ne moo ñu moo moo ko moo ko projet boobu la bëggoon a def si ni te dafa wax ne especially ñi nga xam ne de ahaatu ko descendants of how to, it, how um, um, the slave trade ñi nga xam ne seen maam yi ñoom ñoo nekkoon jaam comme ni African Americans yi ak Caribbean si ñu bari xam nga li fi naka lañ koy te sa um, li fi naka réew seen cosaan réew na ñoom nañ mën a ñëw si place boobu noonu pour jànga seen cosaan so he was a pan Africanist he was how to call it he was thinking about the future he pan Africanist la woon bugg Africa bugg Sénégal Sénégambia bugg a Afrique bugg a séeréer cosaanam lii moo ko taxoon a jóg fëy ati ati at mu ngi nekk di si xeex di si binda xam ngeen ne ku xam ne ku xam ne yoo xam ngeen ne la woon naka lay ko def daan daan play like en inter religious dialogue ak yeneen kilifa yoo xam ne si yéen yëppi diine ak yooyu noonu su i professeur Issa Laye daal li fi naka lañ koy tees suñ papa yu baax la. suñ euh, man nag man lifin naka bi nga képpag bi nga xamee ne euh, suñ first lifin bi interview bi nga buñ defoon buñ defoon ak moom in 2015 dafa mag interview comme wala wax si njëlbeen def interview dafa gudd a torop dafa am pour dañ ko am pour def dañ ko am pour diviser into ñaari into into two part diviser ko into part euh, part one ak part two moom nag loolu loolu rek mun laa wax li mun laa wan ne naka la kii générosité ak time am naka la générosité ak non am knowledge am xam-xamam ci bi si si yi fi cosaanu séeréer bii at boobu noonu at boobu foos boobu passé ñu nga def si beneen at bu si tegu ma delluwaat Gambie dem Sénégal as usual dem interview ko jëlee fa fu noonu ay lifi naka lañ koy teel sa am ah, man maa suma maa ngi a na suma ay suma suma bi mooy ah, Demba Sène ak ah, Ndiaga Gueye ak Mamadou boobu naa mu fa Mamadou Seck a nga fa woon ak ñeneen ak ñeneen so ñu dem interview ko keroog bu so lii lifin naka lañ koy tesa saa yuñ demee rek daf ñoo lifin naka daf ñoo dalal teral ñu après yéen naka kontaan si bépp bi nga xam ne ñu ngi ko record ñu ngi ko documenté ñu ngi ko préserver pour bi lifin bi bu mu réer. Fatou amoon naa ba si naa si boobu noonu la sax foog naa mooy 2016 suñ lifin boobu noonu ndax dafa previous one de 2015. muy génnee euh, mi nekk di wax ndeysaan di nekk di wax di di fi ndax ñaa maa ko laajte question maa demba si ñu ko laaj question bi nekk di wax yëpp yëpp loolu tamit suñu rajo ne fi mu di ko déggoon sax mi nekk di wax di wax di fi cosaan bi ak yu noonu di wëy dakar ci muy mu wax ne li fi nekk lépp loo xam ne ci séeréer wëyu ko bu ko bu ko teel a jàpp comme dëgg la di te su nekkee séeréer suñu maam yi dañ ko daan wëy su nekkee wëy na ko def nañ ko nekk si cosaan bi so lefee naka lañ koy test bi um, jëm nag am na benn am na question mi nga xam ne laajoon naa ko foog naa mooy about rampa script mooy séeréer script yi ñu ko ne ko takala suñ maam yi daan bindee xam nga lefee naka soo dañu ko woon déglu ngeen na benn magam moom la mooy ndey si moom tam ndey si yàlla saltige biram puy moom tam génn na àddina ah, yal na ko yàlla yërëm moom it ah, laaj ko mbiri lii nag mu dem si lifin si may ma tuuti bàyyi bàyyi ma si saal bi man maa suma gars yi ñu dem nag am ndeysaan dugg si néeg ba fu mu dem lijjanti dëkk ay documents ay papers yi nga xam ni ay kayit yi nga xam ne moom ku doon binda te def day yàggali bi dafa dem di dem ci dikk séeréer yi dem di laajte ci defi ne ko di ko recherche comme recherche ba pare jiw di ko binda ba pare defi naka lay ko di ko tasaare. dama méema tuuti rek ma ñëw ma dem ni dem génna mi dem indi ay documents yu bare bare bare bare ay papiers yu bare yoo xam ne yëpp loo xam ne ci ki ci fi cosaan la ci fi cosaane séeréer keroog bés boobu dama tiit sax man ma ne ko laa ji laa professeur Issa Laye ma ne ko lii yaa ko am mu ne ma lay xaay ne ma lii maa ngi ko amee mu jom bëgg bon bon masi bu xëy naka bon masi mu ma saa yoo paree ni ca tàmm ñu doon def li fi naka ñu doon xalaat pour seen pour sanc publishing like Syrian Heritage Press mooy pour sanca li fi publishing house mooy pour li fi nag pour publisher ay books li te yàgg naa ko woon a xalaat 2008 bu nga xam ne sanco naa Syrian Resource Center si laa xalaatoon ne pour ñu indi Syrian Resource am like publishing house pour ñu merge ak Seereer Seereer Heritage Centre pour mi mu ne di dimbale Seereer Resource Centre mi mu di publish ay books yëpp koo xam ne Seereer la au Sénégal ngeen nga am ay books yi yu jàpp yu jaadoo si yooni cosaani Sénégal ya ko defee nga ñu mën la see dimbale ku ne ko bindkat ñu mën ñu mën la see dimbale ku ko defee nga ñu ko ñu mën koo publish wala te nag li fi bari bari bari bari mi hectique ma ne ah xama bàyyi gum Seereer Heritage buñ buñ defagum bi de Seereer Resource Centre ak Seereer Radio moo tax bu ma génnee yii nag ma ne kon nag xaama waat si Séré Heritage Press moom loolu si si si publishing moom loolu moo indi woon Séré Heritage Press nga xam ne dañoo publish ay books comme ni book duñ publish bi yàggu about land to speak safi safi the complete language course soo mel ni fi ma ne ko lii ma ne ko lii rek moom papa lii soo ko génnee yi benn séer benn doomi séeréer si àddina du réerati mu ne ma ne nag yi dama war a jàppale di ma dem si la a ah, bu ma saa lifit nag lu Sénégal si at bi beneen at ba si la si la si la faatu man nag lifit naka lañ koy test ah, professeur Issa Laye Thiaw képp koo xam ne li fi naka lañ koy tees euh, toppa nga toppa nga bindaam bu yàgga yàgga yàgga xam nga kii li fi naka te man si bu man la wax si njël si njëlbeen ne man si suma liggéey laa ko xamee si ma liggéey laa ko xamee bonte mi toog rek ma def ko comme ma comme ni famille famille nekk famille noonu si lifin boobu mel ni man doomam la man tamit jàppe ko comme ni sama papa even yenn yi su nekkee dama dem Sénégal sax ma jógee ba jógee Angleterre dem dem ba nga xam ba dem Sénégal rek wante dafa am projet bu gaaw gaaw bu ma ko war a defee rek wante dafa ñu ma fa na benn fan ñaari fan laa fa am rek dellusiwaat am si ma si ma si ma trip bi yàggut wante su nekkee mënum si nekkee trip bi dafa xat a xat xat sax. ma xaaral ma ko foofu ma kool professeur ñi ñetti nit lañu ñetti nit na sax su nekkee mënumaa dem seen kër dem seeti leen comme ni ma ko bëggee sax foofu ma kool leen mooy professeur Issa tamit saltige Biram Puy ak ah, kii naka professeur Mara Dione yal na ko fi yàlla yàggal moom ci bindkat bu mag la foofu kool leen ma ne leen ah papa li fi naka lañ koy tees am li fi naka man nag démb laa ñëw oo tey laa ñëw nii wante man ëllëg au grand ëllëg laa war a dellu su bi moo xat te doo mën a ñëw wante dama la doon koo rek pour seet na ngeen def film boobu noonu ci respect boobu noonu moom laa amoon ak professeur demee Sénégal foog dem jaari dem dixéen naka dem nuyu ko dem nuyu famille foofu noonu foofu so des bixim relationship boobu noonu moom laa na moom te képp koo xam ne yaa ngi xeex pour cosaani séeréer mun a dem si kanam xam ngeen ne naka ñun li ñoo yàgg nañ ci di def loolu noonu comme ni ku nekk ñi jëna nga jëna ngoon jëna ngoon jëna ngoon jëfee naka lañ koy tee di toppalu séeréer soo seen tey def di xam ne li fi yàgg nañ si wante am na ñu ñu si jiitu am na ñu ñu si jiitu comme ni maas gi moom professeur Issa Laye Thiaw ñoom ñoom ñu si jiitu professeur Ligi Biram Pouy professeur Mara Dione ak nay si yàlla sax alaaji Aliou Ibrahima Thiam Diouf sama sama papa ñu ñoo ñu jiitu si noonu soo cër boobu respect bu bëri ngeen li fi moo tax man li fi naka lañ ko bu ma li fi nee rek ma ne mi mi mel ni daal keroog bu ma xamee ne génn na àddina suma xol dafa suma dafa dafa dafa jeex torop ni tey li fi naka nu meloon na man nu meloon na man mos na maa wax ndeysaan mu ne maa li fi naka man maa naka Demba Seen mu ñëwee seeti ko mu ne maa li naka dañ koy teel sa bul li ngeen a def nii liggéey bi ngeen a def nii liggéey bu important la. te li fi naka mu bon maa leen a wax ne li fi dafay naka lay ko tee sax liggéey bii nii di ngeen si am ay ennemis yu bari te am na ñoo xam ne bugguñ bugguñ dëgg bi génn wante ne dëgg bi foog bi génn loolu du ma ko fàtte mukk Demba Seen mën na la koo am li fi naka lañ koy teel sa recital how to call it up in exactly wante in in just the gist of it loolu la loolu la li fi loolu loolu loolu la doon wax noonu. ma ne ko nag papa ma ne ko nag dëkk bi moom li fi nekkal dëkk bi moom foog foog muy génn ma ne ko nag mu ñun dañu lañ def luñ mun mun mun nañ lañ lañ li fi nekkal suñ suñ liñ si mun ñun dañ taxaw pour li fi nekkal am ah, pour tur bi génn dëkk bi génn li fi nekkal cosaani séeréer génn taxaw. professeur Issa Laye Thiaw nag xam ngeen ne moom moom li fi naka lañ koy teesal liggéeyal na ah, liggéeyal képp koo xam ne nga ne bugg nga cosaani séeréer képp koo xam ne nga ne bugg nga cosaani Sénégal yow cosaani Afrika. then obviously Professor Issa Laye Thiaw liggéeyal na la liggéeyal na la xeexal na la am na ci nekk it matawut sax moom nga ay da nga nekk nga nekk jullit nga nekk christian nga nekk ngay follow traditional religion or whatever then Professor Issa Laye liggéeyal na la so li naka te xam ngeen ne bàyyi na fi ay njaboot bàyyi na fi njaboot li fi naka lañ koy tees man na du ma dee wax rek obvi oh, du du pour dara sax du pour dara sax man du ma dee wax de comme kii koo xam ne daf la xeexal bi bi xeexa xeex sa askan sa cosaan bi mu génn àddina kon nag foog nga ci war koo delloo ngir maane su nekkee da nga ko delloo ngir maane def ko si ci njabootam yu ñu fi bàyyi man noonu laa ko day li ne te bind nañu bëri na wante yu mi professeur Issa Laye Thiawde gi moo tax fàttaliku ne yum binda yum binda bi na wante yu nga xam ne génn na yooyu tuuti la yu génnut mu ëppal yu bari yu moo gën a bari yu nga xam ne génn na am na yu baree bari bari bind na ko lifin naka am yu bari si bind beneen na ko si cosaani séeréer xaju génn kuy sax lu lu lu génn lu génn loolu bariwut lu lu mu binda te mu génn loolu bariwut yu si ëpp yëpp génn kuñ moo tax lifin naka lañ koy teesa man ñu ñaanal famille ñu toog nga xam ne lifin naka pour ñu génnee lifin ni nga xam ne kilifa gi moom la pare woon a def man nag lifin naka am in 2000 and um, 2000 2016 waaw 2016 uh, waaw mooy 2016 janvier boobu noonu demoon nañ nag ndeysaan ñu dem um, pour dem de décembre décembre 2015 décembre décembre 2015 la foog na waaw ñu dem interview naka um, ñu dem pour dem après bu ñu paree bu ñu interviewé moom defoon nañ ko def interviews ak ak ak professeur Issa Laye Thiaw si élection nag ñu ne ñu ne dañoo bi mu fa jógee bi mu jógee si foofu si kër si kër googu nag bala ñu faa génn ñu ne ko éleg dañu bëgg a dem seeti euh, professeur euh, kii bi saltige ndeysaan saltige Biram Puy mooy magam ji xam ngeen ne ñoom ñaar dañ bokkale jëfin jàppantoo bi nekk xarit nekk mbokka nekk moom ji jëf ko mag soo lifin nag mu ne ma xëy da ngeen bëgg a dem si da ngeen bëgg a saltige Biram si jabaas mu ne ko waaw waaw dañ bëgg a dem seeti Demba Sey ne ko waaw dañ bëgg a dem seeti dañ ko bëgg a dem seeti moom tam jël si moom dara pour indi ko pour indi ko def ko play ko si am si si am si rajo gi ak pour séeréer da séeréer de essence yi collection bu ci sa séeréer sa collection bu bu nga xam ne dafaa correct dafaa présent bi document si lépp loo xam ne dafa jaadu si cosaani séeréer séeréer history séeréer culture tradition ak lu gënoon stuff like that ah, for preservation purposes so mu ne ma xay mais déet su ba ngeen si ëllëg su ban tam ngeen dem ñu ko ëllëg suba dañ fay dañoo génn dañoo génn Dakar dem foofu mu ne ma jaar leen si ma kër koy fi ñu ànd ba ne ko papa yow tam ni nga soona mu ne ko ci ci ci suba ba tey ñu ngi nekk sa kër fii di yaa ngi yaa ngi bi fii nii loolu mu ne ma ko bu ne ma xay si kër ga fi ñu ñëpp démarré mu ne ko baax na kon si ëllëg si suba si man maa dem ba ñu jël si jóge fi noonu dem dem jógee kër Demba seen dem si si si kër suñu professeur Issa Laye Thiaw dem jëli ko si ba mu ngi taxaw si mbedd gi di jox xaar nag ndeysaan dem li fi daka daka mi dugg si taxi bi ñu dem nag ba Jobaas ñu nekk fi mu noonu mu ne muy fi naka ñu mu ñu interview bala ñu bala ñoo egg si kër si Jobaas sax ñu wàcce si si si fi naka dañ ko am na fu ñu wàcce si biir naka si aada la bu mag mag mag mag mu ñëw wax nag mu ñëw woon garab yi. naka la garab bi tudda ak ban njëriñ la am am li fi naka lañ ko naka la ko si maam yooyu am na yoo xam ne ñu ngi ko def si suñ si am Seereer Resource Centre am YouTube channel bi am na ñu bëri yoo xam ne def ah, obviously dafa aada aada wuñ ko fu noonu yëpp mu ngi si de Seereer Resource Centre connection so li fi nag bu ñoo wax yooyu noonu nag day nga dem bi si benn ñuy doxantu nag muy gab am place ku mag a mag a mag a mag foofu mu ne ma fii nag maa fi moom mu ne ma fii maa fi moom li ma fi bëgg a def mooy lifin naka leen koy téye da nga fa bëgg ngeen def ci yow ba teg ko sa loxo ngeen def ci Seereer Resource ngeen def fii di Seereer Resource Centre ak ngeen o ngeen ooyee ko de Seereer Resource Centre ak de Seereer de Temple of Initiation bu moom si jëm yem moom moo ko wax ma ne ko lan te xam nga. <laughs> so this is the land property of uh, uh, Professor Issa Lai Thiaw and he submitted to. all Serer in Senegal and in the diaspora. Mm-hmm. So to set the project of Serer Resource Center, mm-hmm. uh, a, uh, a, uh, uh, a, project of Serer Resource Center and the Temple of Initiated Woman. So he had let this land at our disposal. So in order to see some partners who are interested in uh, to settle this project in order to keep and preserve culture. this, land we hope that it will uh, it will uh, welcome hmm. uh, a traditional Serer village where Serer medicine, Serer religion and culture and all those things will be preserved in this. ancient Serer village pattern. So we are calling to all people who are interested in this kind of project to join us and try to see how to succeed it. We're not recording, but we have paper and properties in the job. Yeah. If you can actually just give us a bit more um, from his own words, yeah. what had you call it, um, he is planning to do here. So, yeah. léegi mu wax leen foofu woso woso ini fuat ini fuat ni ini oh, oh ini bawa ande ngesafi head safi wa mana ini ne hekane ulwa pes safi jomera kahni inane chosan safi wa haini kanga halata ine mbo tamsirne ko mer haini mi do et dutum prosenga dutum legay ina nga dalal wahin ike ina hane ebo chine we safi safi na sajen ba raga wonangang di maswe uslihan dan womini aƴnenga waƴnenga ɗa wan kiɗik ciinahne cahay pocci hayre han kiɗikki kadi pocci hayre han bo raak ɗi ca leyne kiɗik cam ca raak ca tumundiɗa a ah, wayni kejjiri yakak dak saafi kiɗik ca meɗe paƴo findin haloy no findin ndumbaƴ no findin njeje hawr kiɗik cam ca kadi poɗiki ca manna intire on nak saafi rafna intem ɗa haɓicca ɗa hayni ke inenanawa hay bahɗe kur ha bahɗe cosaan saafiloolu we tax kidik cingraak nga jen ngoyne haydi ape kidik yinonga mfa cawa wi wayngo se tombe wa habde ina yakan saafi wi wa kidini way se mam mam wa paje innunik wa wane toppun siiti wa paje innunik wa paje affaire wek wek wek wek mam ndi wayno wote mam wetan fatte fanga wiɓan haɓde hon wone kicca apat patat mam tina kidik kijan wiɓanga sina wayno uɗ uɗ yirak ina gañuwan paƴe wiɓe reku mbaña ciɗo hoteñen cey tak e pang fi nak wa pang wa pay small wani ki ina hana wa paƴe ina laay wo ina hana pun soke sok nawe sok fi pampi na pajede fo acnirira fo hemana nir hab tubam ga doji wawa ning ne fu soke lai wala frak kosai si mana prostat wa ane wada wa payo pai kiji wa pampi wa te ko pai small te ko pai small wara ki injiri lo nudem e eh, bi nak o ut ci ca ut ci ndina bi tak e eh, ke intina ne won ca fe posabi rakah ni inah ne an jeyaɗa cootan jeyaɗa kan canga te saafi niɗɗo guuro rag place min go saafi niɗke niiɗo rag place inahne omin tuma ɗo penga inahne ɓa ha hen ni tan han henu pulo oro paydiɗa wayrake ɓe ino nga naɓe pe waɗa tan fo anan missing in tem eh, ndi eh, wet nde inahne wen wo samtirne e eh, bo tayde Seereer ressource centre o mini haywa installé wani kine law waddam ene mbi waɗi waɗ hay fondi ndi yo ñalkok ñalkok e rak ina gañiyona paƴe pañ ñalkok wiwoy ngasum ngasu aussi woy ina rak syphilis kosa jar ngasu ne paƴe pañ na ina virus gañca paƴe o ɗo Better don't you find out. Chào phải đúng cái chào sang nhau. Vì wa dang dang dang dang yo apa ina gany wa apa je ina rak nas na ina che ina gany dang dang wa apa wa wa dang dang ngak sabi. Eh dang dang ngak sabi wa apa bi ina lai. Eta eh, do wa na vida hai da hab de. da wanene in tinane cakkide grafijiri jendat so hayɗi fa hawde yino nga taha jayɓa tan uh, waɗa hawde ndiga voilà tamsir moy ini ɗi dale fiba pale ça fait 6575 mètres ah ouais, avec la possibilité d'un d'augmenter extension le levant euh, extension, ouais, la possibilité waaw kii nag sama doom bàyyi waaye xam naa nag moom nag kooku beneen kaa sama doom bàyyi la waaye ku wexe-wex lool doy waar xam nga affaire doom bàyyi la loolu pour teen bi ñu wax mën nañ leen wax ñu góorgóorlu dem am na ku fi gas teen treize mètres quatorze la war a doon fii ngi ma foog naa ku gasoon loolu treize quatorze ba quinze di am ndox mu kow ñu doxantu ba pare nga kii seet. waaw seet ko waaw daal fii benn garab fële ne de. yow ah. ay séeréer nga doon laaka. Ah. waaw. waaw mam ah? mam. waaw ne li nga wax si garab yi waaye séeréer nga doon laaka xam waaw garab boobu. Mm-hmm. Euh, garab bale mam euh, dafay faj lu bari. Mm. moom lañ wax wolof di wax euh, yetu dem yetu dem la koy wolof di wax c'est garab la waxam ñi njulli bu ñu duggee njaaleel moom lañ leen defal nga bant moo ñaari bant yooyu ñu jàpp bant yooyu boo ko jàppee seytaane du la ñeme dëmm ak yi def lay ragal bu fekkee ne nit ki dëmm def ko jàpp yu dema boole nañ ci liñ ci boole pour bokk na ci li ñu boole pour ñu faj ko te li ñu wax aussi euh, toppum siiti toppum siiti yaram bi génni góom li kii kooku daf koy faj yaram moom moom euh, dina faj góor goo xam ne aussi dafa dem ba tële mm. affaire bi daal xaw a neew doole nañ ko booleeg leneen pour après euh, mu mën a jóg bu baax kooku yu bari bari daal dinañ ko ku jëriñoo moom mam si guy googu noonu waaw ah, garab boobu waaw garab boobu ma jàpp noonu teg ci loxo waaw ñu seet teel ndeysaan lifit dañ doon wax ne lifit naka lañ koy te man nag man dama yàgga nuusee ma yàgga ma yàgga sopp ma yàgg di laaj ci toog di toog ak kilifa yi di waxtaan a ñoom si maam yi séeréer dañ daan wax ne suuf doo ko xeex suuf soo ko mayewul doo ko xeex doo ko lëfrin ni ko lëfrin naka lañ koy teel sa am suuf di ke nag soo génne àddina nag yàlla dem soo danga ko fee bàyyi wante dafa xalaat xalaat xala xalaat bi mel noonu noonu man nu ma xamante wéxi naka juruma ak yu noonu doom da ba seen la xam ba démbi ji fi man wante mu bëgg a jël suuf di ko def ko teg suma loxo pour ñu mun a sampal li ah, projet bi important bii nii di pour bi nga xam ne képp koo xam ne doomu séeréer nga képp koo xam ne doomu africain nga doomu séeréer bi si àddina ma ne ko nga ne nan mu ne ma mu ne ma waaw mu ne ma lii yow laa ko bugg a teg nga lifin naka lifin bi nga teg teg ko sa loxo pour nga pour nga lifin ma ne ko bii nag keroog daf ma surprise ah démbal sa mos ma sarde mu ne ma lifin naka lañ koy te lii laa bu ngeen def pour ñu lifin nag mu ñu wax nag ndeysaan lan la bëgg a lifin nag pour ñu nekk ci projet boobu noonu pour ñu faa def lifin nag ñu képp xam ne dafa bëgg a jànga lifin naka lañ koy tees am traditional traditional médecine di séeréer dañ faa bël ay rooms ay like like like a daal lu du ñu wax si dométrie si wa si si lifi nag dëkk ay dëkkukaay school lay nekk boo xam ne xam ne école nekk boo xam ne am na ay dëkkukaay ñëpp koo xam ne jóge na si bitiw réew doomi africain o ku mu doon rek bu ko jàng cosaani séeréer naka si maam yi daan defee ay lifi naka fajee séeréer médecine séeréer culture séeréer tradition séeréer religion everything else dañ dem foofu noonu koy fi ñu dal foofu noonu am ay professeur am ñu xam koy fi ñu faa jàngee bi nga xam ne pare nañ nag bi seen paas su lii la papa suma papa suma papa professeur Issa Laye Thiaw doon xalaat dëgg yàlla génne ko àddina wante li fi naka lañ koy peesa um, keroog bu ma yëgee ne professeur Issa Laye Thiaw génn na àddina ko mu doon wax si njëlbeen rek ah li fi naka suma yorom dafa daw torop nit um, kii um, Amadou Mampaté Ba bindkat yi malien boobu noonu noonu. mu ne fi nekk su mag génnee àddina ram ngi mel bibliothèque lakk na muy laaj bi dee na ma ne ko that is very very fitting when an elder person dies how it um, like a entire library burning into ashes um, to quote um, uh, um, yaram dafa daw torop nit ke daf ma ne lifin naka ma ne ko ah ndeysaan lifin naka Sénégal séeréer Sénégal Sénégambia ndeke Sénégambia amoon si maam yow si niñ ko da ngaa wax amoon li fi am moom ñi nga xam ne xam nañu cosaan xam nañu cosaani Sénégambia tigi ñoom lañ la wax loolu la xam nga dëkk bi fu nekk dañuy am dul gàccul Sénégal rek dëkk bi fu nekk nii jamono ji fu nekk nii dafa am ay ñëw Sénégalais yoo xam ne ak ay Gambien yoo xam ne dañoo ne ah man Gambien man Gambien man Gambien duñ dee xalaat Sénégambia am na ñu sénégalais yoo xam ne tam ñoom ñoom ah Sénégal Sénégal Sénégal te ñoo ñaanal di ñoo ne ah yenn Sénégal lii yenn Sénégal lale di kéemtingul Gambien tamit duñ de xalaat démb ñu teg ko suñ kilifa yi ndaw ne képp koo xam ne doomi nga am nga maam am Gambie képp ko xam ne doomi Gambie nga am nga mbokk wa maam Sénégal man sama maam mi Sénégal lañ jógee soo lifi naka lañ koy teesa moom nag yii moom xamoon na yii mu ne lifi naka lañ koy teesa keroog man bu ma lifi ne ma ne ko bota ma ne ah, Sénégambia ndeysaan luus na képp luus na kilifa goo xam ne daal séeréer luus nañ Sénégambie luus na la fi nekk Afrique luus na koo am koo xam ne kilifa goo xam ne yàlla mayoon na ko xam-xam kilifa gu baax ku barke ku generous ku generous with his time ak his am um, knowledge koo xam ne lépp am xam-xamam daal daf ko daan bëgg a séddoo ñëpp dafa bëggoon affaire lu mu lu ko neexoon daal yëpp yi yëpp buy nëbbu dara dara lu nëbbu ñu génnee yëpp kay fekk képp koo xam ne képp a gën a doomi suuf sa kaw sa bo sa sa bopp bi dafa nekk si kaw di nga xam ne am nga am am nga cosaan bu diis di seet ci fi naka lañ koy xam nañ ñi nga xam ne ñu ndaw ñi ndeysaan ñu bari bari réer nañ lifin naka lañ koy test infériorité complexe ak yu noonu yëpp lifin naka lañ koy suñ ñoom suñ xamul fan la suñ xamul suñ cosaan tigi tigi tigi tigi tigi billaahi du réerati nañ xam ne fu baax na jógee kii nag kilifa gii nag moom la doon pare pour xeex nag pour mi fi def dee na si lu bari ndeysaan fa ati ati at ati at ñëpp ñoo xam ne ñu ngi koo ñu koo koo fii naka lu moo wax ñu ngi am na ñoo xam ne ñu koo ko sabote ñu ngi ko sabote di ko tegee boor moo taxaw mu advice ñu man maa dembase mu ne ah ñun si ma doom ngeen li fi naka li ngeen a pare pour def lu baax baax li ngeen a def li ngeen a def lu baax a a baax la wala dama leen a yëgal ne fi naka lañ koy tee sax am na ñoo li def am na ñoo xam ne du leen neex wante dëgg bi foog bi génn ma ne ko loolu mooy loolu mooy et puis su nekkee dem naa bi nga xam ne yëf yi métti na sax léegi ne def day métti di teg koo xam ne koo xam ne yëf yi naka maa ngi fa 2006 2008 ma taxawal Sérère Resource Center di nekk di si def suma ay doole 2016 ma taxawal Sérère Heritage Press di si def ay suma doole 2002 excuse bi 2016 ma tax 2015 December 2015 2016 um, January ma taxawal séeréer rajo ba tey di ci continuer soo def sama doole 2018 def taxawal séeréer séeréer héritage ma dem seen di si di continuer suñ def si suñ di suñ doole ak ñi nga xam ne ñu ngi de ñu ngi ñu ngi jàppale comme ni suñ produit suñ produit sax um, um, um, presque si nga xam ne ñoo nekk Seereer rajo ñuy mënu mag mënu mag na gërëm gërëm nga amul at nit man keneen keneen nit mënul sax def yëpp wante lifi bi ma waxee loolu ah, man de foog ma ne naa mën a continuer lii ma loolu defee ma de xalaataat lu ma papa bi bu baax a baax a baax rek ma digëral rek continuer so lii moo ñu lii moo ñu taxaw jóg nag wante professeur Issa Laye Thiaw kilifa gu baax la woon kilifa gu yàlla ba yoon xam-xam kilifa gu wax ku tedda la woon di ko man li fi naka lañ koy tees amoon na ñeneen ñoo am na ñeneen nag comme ni prof moom tamit saltige biram kuy magam ji moom tam yan it naka di leen ñaanal fuñ tëdda yenn fuñ tëdda noonu yenn yenn yenn leen gënal fii fuñ nekk noonu yenn leen gënal fii yenn yàlla suuf ayofal si kawam yàlla barkeel seen njaboot li fi naka lañ koy tees di wax ne li fi naka lañ koy tees yàlla jox na ko xam-xam lu mu si mun lu mun mun mun def na lu bare bare si àddina te ngeen xam ne bàyyi nañ fi ay jaboot ñoom tamit bàyyi nañ fi ay njaboot koo xam ne bu nga lifin ku la ku la nit ku la xeexalee pour sa cosaan dëgër pour sa cosaan taxaw xeexal na boppam waaw dëgg la xeexal na boppam waaye yooyu xeexal na la xeexal na la xeexal na sa sa sa sa jar sa sëti sëti sëti yoo xam ne xaajal bu ñoo juddu kon nag pour delloo ngërmande rek pour li fi naka lañ koy te su nekkee ne ngeen delloo ngërmande ne te nekk fi ngeen xalaat ne am na ay am na fi ay am na fi ay njaboot am nañ fi ay njaboot nag te professeur Issa Laye Thiaw ak professeur ma am sant professeur Issa Biram Puy am nañ fi ay njaboot bàyyi nañ fi ay njaboot di ñaanal suñ keneen kilifa gi tam ndeysaan professeur Mara Dione moom itam yal na ko fi yàlla bàyyi yal na ko fi yàlla yàggal moom itam def na liggéey bu bari ci li nekk ci mbiru cosaani cosaani séeréer spécialiste am séeréer def na si lu bare bare bare bu mu ko na ko fi yàlla bàyyi yal na ko fi yàlla yàggal di ñaanal seen njabooti professeur Issa Laye Thiaw ak maa professeur Mara seen njabooti ñi fi bàyyi yal na leen yàlla dimbale yàlla barkal leen yàlla ubbil leen wërsat yàlla sutural leen ah, li fi naka lañ koy littéralement mun di lifi nag di diisoo seen di diisoo famille bi lifi nag du pour dara sax wante pour diisoo rek pour fàtte ni lifi nag ñu fàttewuñ leen su loolu dafa baax tamit di teel lifi nag su la man seen kenn kenn mënut a fay kenn kenn mënut professeur Issa Laye Thiam lu mu lu mu def man lu ma defal man mënuma ko mën mënu su ma mënuma fay mënuma fay mënuma ko fay njabootam sax mënuma koo fay njabootam sax di teel koo xam ne daf la jox xam-xam ku la jox xaalis. xaalis moom te faatee la jeex soo ko définir rek parce que mi jeex waaye ku la jox xam-xam ku la jox xam-xam nga xam ne di si mën a dunda di nga si mën a paas sa sañ sit ak sa kooku jox na la yëpp man nag loolu laa amoon si professeur Issa Laye Thiaw su ma wax na leen lifin naka moom génn na àddina wante ngeen bàyyi ngeen ngeen fàttaliku ne njabootamam fi njabootamam fi te di leen ñaanal di leen di leen di leen ñaanal bu baax a baax nag ba naka léegi di leen gërëm te ñëw toog nag mi nga xam ne tay mi xam ne pare nañ rek ñun ñu pare nañ jàll rajo pare ba te ñu pare nañ te ñu pare rek ñu yëkk bëgg nañoo ñu leen a lifin ñëw ñu leen try comme ni kilifa gii professeur Issa Laye Thiaw maa ko bu ñu ka bu ñu waxtaan loolu maa ko ko diggoon ma ne ko man la laa si taxaw naa si taxaw taxaw taxaw taxaw xanaa sama bakkan ñàkka wante lifin naka lu moo yàgga yàgga yàgga lu mu ko digg digg digul dina ko def so nag ñu leen a gërëm ni te keroog bu mu wax ne tamit rek ne yéen nag pour yokk tuuti rek ne keroog bi nga xam ni ndeysaan génn àddina keroog si bu nga génn àddina comme wala wax rek on the tenth of um, on the tenth of uh, uh, September two thousand si la génn àddina ci lañ def tribute yëpp am ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ñu seen ay tribute comme ni um, Babacar Diouf from um, Hatikoli Pouf def secretary general of radio def nañ radio def def nañ radio def nañ. moom moom moo nekkoon yàgg na foofu noonu woon ak Haatikoli the president of Haatikoli cosaan séeréer bu nekk France Mamadou Diouf ak li fi naka ni ko ak ñu bari bari ndeysaan di ñu seen ay tribute yoo xam ne li fi naka lañ koy teesa pour ñu bii ne ko fu noonu pour tribute professeur Issa Laye yëpp def nañ ko si am seen réseau web seen website fu noonu te ñi nga xam ne mënoon nañ ko fu noonu wante nag si élection nag si laa ne ok fu nii nag dinañ try ñu organiser special tribute mooy the 11th of September si élection si si lundi bi si lundi bi si def arrangé pour ñu def special tribute ñaari ñaari ñaari awas si tribute live tribute si laa oo gars yi yëpp. ñoom Mamadou Fall ñoom du Doudou Diouf kii naka lañ koy tes Moussoukoro Sidibé ak Leyti Sène ñu ngi comme fu the current euh, director of programmes of Serail Regional ak euh, Jokal Lamangom ñi nga xam ne ñoo bokkoon si Ndefleng rajo Ndefleng FM Diourbel 96.4 comme ni jot jokkal la mu gom ak Ali Sène si lay ñëw di def ay lifin naka lañ koy test ay tribute Demba Sène moo ñu nekkaloon si lifin bi mu bëggoon naa contribuer moom tamit wante moo ñu nekkaloon si lifin bi naka lañ koy test si dëj bi yooyu noonu so li fi naka lañ ko moo tax mënut woon a kon bi clé moo tax mënut woon a contribute mënut woon a contribute si boobu noonu so ñu def ay special tribute li fi naka two hours tribute si di ko dédicaté si lifi nag si kilifa si kilifa gii nii ak si xam ngeen ne si fan yu ñëw yëpp si topp la il faut almost a week two weeks ñu doon play lifi nag interview yi nga xam ne defoon nañ ko du ñu ko play throughout the night yi nga xam ne lifi nag as a special tribute to the man so lifi nag kii um, professeur Issa Laye Thiaw nag moom lifi ndeysaan paa yi ma tooree nag di ko xalaat di ko ñaanal di ko di ñaanal njabootam di ko gërëm ci liggéey bu mu def si àddina ku nekk def ku si ku si nekk dafa am mission si àddina yéenay soo soo kii nii doom mission kii nii du defaa différente ak mission ni kël na li ku si nekk am na mission am na lu tax mu war a nekk mu war nekk si àddina fii kooku loolu moom mission am loolu moom loolu mooy mission am ma ne lii mooy suma mission in a way lii mooy suma mission xëy na dafa différente rek wante lii mooy suma mission so li fi naka lañ koy tees moom daal li fi naka ndeysaan yu ku ku ku ku xam ne daal ku ku jar a gërëm la ku jar a ñaanal la fi mu foofu noonu yal na ko gënal fu mu nekk nii yal fu mu nekk noonu yal na ko gënal fii te xam ne ñun fàtte wuñ ko mukk fàtte wuñ njabootam fàtte liggéey bu mu def si arena soo nag kon nag li fi naka lañ koy teesa rek ma wax ne ah, man la Tamsir Diouf Seereer soo Centre Seereer rajo ak Seereer Heritage Press di ñaanal famille bi yépp di ñaanal ah, képp ko ah, xam ne li fi nekk ah, séeréer kese àddina foo mën a nekk rek di si ñaanal Sénégal yéen yëpp ak yëpp ak di seen dani africain yëpp foo leen mën a nekk si àddina di la ñaanal te ngeen muntu coronavirus bi nga xam ne li fi nekk pandémie bi nga xam ne dafa doy waar trop yal na ñu si yàlla musal ñu képp koo xam ne dafa feebar yal na la yàlla may wér képp koo génn addina yal la yàlla xare àjjana bu gën a kawe yàlla ubbil ñëpp fan bu may ñëpp fan bu gën a wér bu yaram ak barke jërë ngeen jëf man la Tamsir Diouf yéen a ngi déglu Séeréer rajo bii nag xam ngeen ne tey open mic la time te normally show yi open mic la dee tudda te mu kii moo ko dépassé Mamadou Fall wante tey nag man ngeen am tey xam ngeen ne li too nekkoon yéen a ngi doon déglu suñ di film bi xaw ma kanay wax nu li si gannaaw mbay ma tuuti please ña même ñaanaa leen leen soo leen soo doon déglu soo leen doon nekk yéen a ngi doon follow suñ Facebook page bi ak suñ am Twitter page bi di nga xam ne li fi nag fan yi dañ am dëj ku ndaanaan moom ndaanaan koo xam ne ku dëgër ku diis si cosaan waxtaani séeréer kooku moo gaañu si fan yi ku ñëw wax professeur Issa Laye Thiaw su nekkee di ngeen daan déglu si rajo bi si laas ya especially di ngeen xam ne kooku indi nañ ko si rajo bi fii nii yoon ji bëri sax defa moom interview yu bari loo xam ne dafa jëm si mbiri cosaani séeréer histoire séeréer culture séeréer ak traditional religion séeréer lu suñ maam yéen nga xam ne moom lañ naan moom lañ doonoon kooku indi nañ ko fi yoon gu bari muy waxtaan yi meñu xelam ak si mbiram si mbir yi loo xam ne dafa dàpp yépp si mbiri séeréer fan yi nag xam ngeen ne moom fii naka si nekk ñu nag lu ñu fël xam ngeen ne lëf naka lañ koy tees am ku ñëw wax professeur Issa Laye Diaw suñ xarit suñ oncle suñ papa moom moo gaañu lii nag moom show bi nag moom daf ma lifin naka lañ koy teesa man na ko wéruma wante lifin naka lañ koy teesa ma ne tey ñooñ saa ñu def lifin show bi suñ def ko proper tribute indi suma suma nga xam ne ñoo liggéey fii ni si Séeréer rajo ak de Séeréer Resource Centre paa man introduce leen dem ba seen normally amu xëy naka ah, war na war war mu ngi waroon a ñëw wante xam naa nañu try join si kanam Mamadou Fall mu ngi si line bi Moussa Kora si dibe mu ngi si line bi ak ah, Doudou Diouf ko gën tam xam ngeen ne moom tam daf dee présent fii nii si Laetitienne Laetitienne yaa ngeen koy dégg moom tam si cosaanu séeréer nañ dañ dugg a indi suñ suñ waa gars yi sénégalais yi ñi nga xam ne ñoo nekk si jog fii nag am région def la ngi Diourbel indi indi kon Mamadou Fall mi nuy wante gars yi Mamadou Fall na nga def. Euh, jërëjëf tam si ñu ngi lay nuyu di nuyu euh, ñi nekk si euh, panel bi yëpp di nuyu mbokk yi ñuy déglu yëpp vraiment di leen jaale di leen jaale professeur Issa Laye comme ni nga ko waxee Tamsir. Euh, doonoon na koo xamante ne historien la woon donc koo xamante ne cosaan ak aada séeréer soxaloon na ko lool waaw mu si dox wàllam si liggéey di jàngal ñi mel ni ñun euh, kon ñuy ñaan rek ñun ñëpp ñu kon ne liggéey boobu euh, bu ko defee aada bi ak cosaan bi bañ a am sa jërëjëf. jërëjëf Mamadou Fall xaama indi Leyti Sène Leyti Sène yàgg nañ laa dégg Leyti Sène si moom tam xam ngeen ne su ko daan dégg si cuñ cosaani séeréer programme yi nga xam ne mën nañ laa indi samedi bu jot si ñaari waxtu si Angleterre moom daf si daan bokk kon am indi Leyti Sène mi ñuy wante mbokk yi Leyti Sène. waaw Tamsir allo Tamsir ñu ngi leen di ziar bu baax. waaw xam ngeen. di ziar bokk auditeurs yeeg auditrices yi ñoom Mamadou Fall. na ngeen def ak coono yi ana waa Angleterre ñu ngeen di ziar ci ñëpp. Mhm. di leen wax ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñu fi jógee wax dëgg yàlla comme ni ngeen ko waxee historien la woon boo xamante ni wax dëgg yàlla amoon na njëriñ lool lool lool lool ci suñu askan amon na njëriñ aussi ci suñu culture di ko ñaanal yàlla mu xaare ko àjjana yàlla suñu borom yërëm ko te defoo ca àjjana fii daw si jërëjëf Leyti Sène jërëjëf yoo tamit ak kon nag nga dugal suñ jigéen ji mooy Moussoukoro Sidibé mu ngi dugal ñoom bala si Moussoukoro. bu baax di la ñaanal ñoom di nag sama collègue yëpp nuyu naa leen di ziar bu baax di nuyu suñu mbokk auditeur di leen jaale di leen euh, masaw bu baax ci naqar gi ñu bokk. di professeur Issa euh, comme ni ko Mamadou Fall waxee mu nekk historien euh, nekk benn euh, théologien bu mag a mag allah donc di ko ñaanal yàlla yàlla xari ko àjjana gën kawe donc di ñaan ñi ma ko mi gën may leen xol muñ ak allah Eh, ñu bëri jàngee nañ ci moom ñu bëri bëri ma donc euh, di ñaan rek euh, li inculqué li mu inculqué ñu bare loolu law ba euh, suñuy mën ko jàng maa ngi ziar ñëpp jërëjëf Moussa Koro Sidibé jërëjëf yow tamit ak kon nag man ma dugal suñu góor gi mooy Doudou Doudou Diouf Doudou Diouf na def. xanaa ni kon ñëpp waxee rek jaale jaale famille bi mais jaale itam Sénégal ndax suñu baay Issa Laye Diaw nekkatul woon koo xamante ne dafa bokkoon si famille Sénégal yëpp ko moomoon rawatina nag séeréer yi mhm. ndax ni mu ko moo defool waxee ak musikoro liggéey bi mu def fii def na wàllam def na wàllam teg na ñu bëri ci yoon rawatina man nii aw ma chance su rencontré ko nag aw ma chance su daje moom mais ci ay mbindam jàngal na ma lu bëri lu sax moo taxit ñàkk nañ tey comme ni ko Amadou Hampâté Bâ di waxee tey moom bibliothèque moo lakk lakk ñu ñee ni ko séeré di waxee guy daanu ndax nit ku mag la woon Ah, jërëjëf Doudou Diouf jërëjëf si wax gi nga wax noonu jërëjëf ah, foog naa dugal nañ ah, si director of Ndefleng si def Ndefleng foofu noonu Ali Sène Ali Sène yaa ngi si bi Ali Sène na def. ok Ali ok Jokal Ngom Jokal Ngom si Ndefleng moom tamit gaa yi Ndefleng Jokal Ngom na nga def. waaw. si gi leen sen seen waa seen professeur bi mm-hmm. Issa Laye waa ju baax mm-hmm. yàlla ko yàlla ko yàlla yërëm il était vraiment quelqu'un quoi gole bibliothèque lakk na bibliothèque lakk na bibliothèque lakk na connaissent la culture sérère. Mm-hmm. gis naa ko je ne l'ai pas je ne le connais pas de vue mais gis naa ay œuvre am quoi ay œuvre am. Mm-hmm. même am na benn livre ma lire mu def la femme sérère les femmes sérères bind na ko ak yeneen œuvre ouvrage vraiment ñu ngi ko ñaanal yàlla yóbbu arjana. vraiment vraiment vous avez perdu un collaborateur un bon collaborateur vraiment quoi. baax bi nga dégg. maa ngi laa dégg wante yaa ngi yaa ngi kot noonu te ah. yaa ngi doon kot noonu wante ñu la doon dégg tuuti ñu la doon dégg tuuti yaa ngi doon kot tuuti wante ñu ngi laa dégg. vraiment vraiment on partage partage la douleur quoi koy partage ñu nag équipe bu Ndefleng yëpp vraiment métti na trop trop trop trop quoi vraiment un vrai historien dem na donc une euh, bibliothèque à brûler un géant tombe daanu na mais nag yëpp mbiru yàlla. nañ ko ñaanal rek yàlla baal ko bàkkaaram yóbbu ko àjjana Aly Seck dafa génn nag lii xam naa mu ñëw ci kanam dégg baax na jërëjëf ñëpp ñu ngi leen ko ñu ngi koy jaale li ñu ngi koy jaale ñu leen koy jaale. jërëjëf yàlla ko leen yërëm yóbbu ko àjjana. goleen nit baax a baax a baax a baax. dëgg la xam histoire ku mën histoire vraiment liir naa ay ay ay ay audio yëpp maa ngi ko doon écouté déglu tey. Mhm. ci seen euh, borsikat bi tey. Mhm. yëpp mais yu am sens la. nit ku mel noonu vraiment jafe na vous avez perdu vous avez perdu un de savoir bu xam-xam xam nu muy wax xam nu muy def yàlla na ko lay yërëm yóbbu àjjana ñun ñu ngi ñaan rek jërëjëf jërëjëf Jokal jërëjëf Jokal Jokal moo ñu ñooy gaa yi waa rajo Ndefleng ñi nga xam ne ñoo nekk Sénégal rajo Ndefleng Diourbel 96.4 FM foofu noonu Sénégal Diourbel jërëjëf si wax gi nga wax noonu lëfi ndaxa lañ koy tese Mamadou Fall foog naa amoon na benn live show bi nga xam ne defoon nañ ko foog naa man ak yow nag Demba Seen aw analysis bi nga xamee ne defoon nañ ko waaw foofu noonu ci gannaaw si am nañu show boobu noonu yow Doudou Diouf wax na lu am solo si bu moo wax noonu comme indi si li fi nag Amadou Mbaté Ba ki nga xam ne mooy ndaanaan googu ndaanaan ne africain googu noonu waxoon si li fi nag ne su af góori su kilifa africain deeyee rek fu mel ni laaj bi daanu na lakk na si baati wolof wante dama bëgg a def rek ba bala ñu def loolu dama bëgg a Momodou Fall yow nga introduction bi nii si si baati séeréer ko defee ñu ni wante suñ mbokk séeréer yi nga xam na ñu ngi xëy na dégguñu wolof Mamadou Fall. waaw ah, jërëjëf Tamsir comme comme ni nga ko waxee rek euh, émission bi tey yaa koy présenté wan waaye man maa ko war a présenté loolu nag am lu ko waral mooy dama dama jàpp war a tey su guddi donc loolu tax euh, daal nga présenté émission bi tey xam naa moom du ma yàgg damay dugg nii rek euh, vraiment nuyonte mbokk yi jaare leen professeur Issa Laye Thiaw yàlla xaare ko àjjanna comme ne Tamsir lay tudd na rek euh, émission fe xaye émission spéciale xa andoona yee euh, xo o jàngale tel daal xen ref na professeur Issa Laye Diaw refu professeur fa maak ref ref xa andoona yee aada fa ah, a soxal an trop a jaleega ten mayu daal andana euh, ino ngoor ke wala we nanene nami euh, ke andona ye ten ref u cosaan fe in daan we ref u ka andona ye a jega solo trop euh, émission um ke nu mbaya nannooxa den na ke andona ye ten ref podcast fe nu retanga maaga sereer podcast xëy nu mbaaw na ten euh, ka andona ye i mbaaga njang teen e andona ye nen daan in we a ñoowteegu oxa koy professeur fa koy comme ne laytanooma a ñaka a ñaka ñaanan rek ciin ajana rooga tamit euh, a saamay ɓasil ne andoona ten a waasu meen ton kene daa ref ke andoona ten na waxtaantel xaye Eh, kon eh, dam noxt eh, namta ñuxre en andonaye ten ref Tamsir Diouf Tamsir ah, jërëjëf ah, Mamadou Fall jërëjëf maa ngi laa gërëm yow tamit ah, fokkuma am si laan bi ah yo jokkeel Ali Sène Ali Sène laa gis de xaw ma na jokkeel moo ko moom mooy amee ma si nam bi ndax lan jokkeel ngoom Ali Sène la xele Ali Sène hello Ali tuuti yaa dégg tuuti. waaw ma nga dégg go bi rek. waaw mi ñu ngi laa dégg ñu ngi lay dégg continué. Ah, ah, leen di jaale li nga xam ñu ñoo ko bokk. jërëjëf jërëjëf. ñu mhm. maa leen koy jaale. Siga sa wala waa. di bokk ci di bokk ak yéen métti bi. Mhm. Euh, di xam ne ñàkk nañu nit ku rëy un homme de culture. Mhm. une bibliothèque. koo xam ne bii daanaka imaan yëpp la doon jëriñ. dëgg la. ndax bind na ay livre am xam histoire réew mi xam na ko wax dëgg yàlla nit koo xam ne daal wax dëgg yàlla du du nit ku jafe la nit ku naqaree remplacé la. Mhm. waaye yal na ko yal na ko foofa gënal fii mu jógee te li mu fi bàyyi yal na ko yàlla teg loxom golañ euh, wax dëgg yàlla itam ñu ñu jar a jaaleel parce que démb ba tey tam si yaa ngi wax ci moom lu ne yaa ngi lu baax lu ne. wax yàlla rendre nga ko rendre bu doyee kon yow itam jërëjëf. jërëjëf jërëjëf Ali jërëjëf Ali seen Ali seen ah, mooy. démb dafa suivre lu rafet da ko témoignage bu rafet bu baax yow itam kenn gënu la euh, li li nga ko yàlla fay. amiin amiin. waaw jërëjëf Aly Sène Aly Sène mooy xarit koy si si di directeur si foofu noonu si am région def nañ Diourbel Sénégal foofu noonu ah, ñu ngi laa gërëm bu baax yow tamit sa team sa sa team bi foofu noonu Aly ñoom jokkal nga ma gaay yi sa gaay yi foofu noonu ak liggéey yu baax yi ngeen def foofu noonu ñu ngi leen a moom suñ góor gi am Demba Seen nga xam ne moom man maa moom ma taxaw si lifin bi ñoo start ñoo start lifin daka séeréer rajo ak séeréer société ba tey maa ko nekk di ko xaar ne sax am problème foofu noonu Sénégal mu te mënut a dugg mu te pare woon naa dugg ngi woon si line bi taxaw dañu xaar wante ma xaw ma ne lifin naka dañ moo lan lan mooy xew foofu noonu wante lifin naka ñoo ngi maa ko try pour seen message pour seen moom nañ ko mën ko mën a dugal moom tamit wante obviously nañ xëñ na su nekk mu Demba Seen su nekk yaa ngi nga call ñu baak taay jooñu si Skype bi. man nag man la fi naka lañ koy tees am na euh, yenn ak ay code si nga xamee ne foofu noonu dëgg dëgg dëgg li fi naka professeur Issa Laye Thiaw naka yoo xam ne wax na ko daal ba mayee na ko xam-xam si li fi yooyu laa bëgg a dugg te am na yooyu nag soo ko soo ko déggee nag xëy na nga xam ne da nga ne soo ko soo ko xalaatee soo ko toogee si nga ko soo ko toogee doo ko xalaat. on téléphone nag soo dafa dafa make comme common sense la lu ko tubaab di wax common sense wante su nekk xalaatuloo ko digga digga digga daf laa lifin daf laa confuse daal wante du ma du ma bëgg a lifin mooy lifin nag mu am na benn interview ndeysaan bu ñu def nag bu mu wax si le euh, lifin nag séeréer ku nekkee dem na ba nga xamee ne jàngatul daal li fi naka culture am traditional religion am ak yu ak histoire am yooyu noonu dina toog ba di nekk du te séeréer sax li ma bëgg a def rek du Doudou Diouf mooy lifi naka play section boobu noonu si lifi naka euh, ngeen déggal lu góor gi di wax si professeur Issa Laye Dia ki nga xam ne moom la ñoo euh, te euh, play pressure tribute tey professeur Issa Laye ki nga xam ne moo gaañu si dimanche gii nii den 10th of September 2017 tey ñu ngi tey lii moom live la tey lifi naka lañ koy tey tey la Monday, euh, the, the 11th of the 11th of September 2017 um, Professor Issa mu ngi gaañu um, dimanche gii nii the li th so anyway ma playal bi weena lifim audio bii rek short audio rek la ngeen dégga góor gi lu moo wax si fii nii euh, seereer nag boo seetee ci dëgg-dëgg mën nañ wax na du turu ethnie mais turu religion la religion conception la mbaa su ne am na group séeréer yu bari euh, maag Demba Safeen lañu wax am na koo xam ne noon lay wax am koo xam ne ndutt lay wax am koo xam paloor lay wax am koo xam ne siin nga ndum wala siin siin lay wax waaye ñooñu yépp ñoo bokk ni ñuy tuuroo ñoo bokk ni ñuy ñaan yàlla ñoo bokk ni ñuy béy agriculture ñoo ko bokk ñoo bokk euh, ni ñuy sàmm seen sàmm benn sàmmin la moo ko moo ko bokkale bon nga seet ne bon séeréer du langue bi rek mais des pratiques et des croyances rituelles mooy séeréer ci séeréer bés bu bàyyee pratique boobu rek bàyyi tradition bàyyi religion traditionnelle dafay ñàkk lépp presque day dem ba dootu nekk séeréer waaw waaw ci Thiès la ne waaw. am Mbour Thiès la nekk Mbour Thiès la nekk. Mhm. Joal Joal Thiès la nekk waaw. donc sànq si Thiès Joal la nekk. ah waaw Joal ne waaw waaw. Ah. bii la Thiès la bii la Thiès la. Thiès lu jot waaw. demee Sindia Sindia foog naa ci Mbour la bokk. ah si Mbour la bokk. Sine moom fan la nekk. ah Sine Sine. Sine Sine yow. Sine waaw Sine région de Sine. Sine moom kër boppam la. Euh, Saloum aussi def nañ ko région boppam. te ah. ah, bu njëkk a Sine Saloum la woon. waaw. Ah. nga xam nga jamono bi tuub bi ñëwee bi tuub bi ñëwee ñu ne ñoo xam ne séeréer yeefeer la xam yàlla xam dara séeréer si ñu sewul sabar la te booba léegi nit yu bari ku nekk séeréer sax dafay rus ko wax séeréer alors boobu ñu bari mais boo seetee Afrique fii Sénégal Gambia dañuy ñi ci nekk séeréer ñu néew lañ ñu néew lañ euh, fekkee ñu bari bari ñu ñu xam olof tey ay séeréer la ñu wax yam sereer la jam gi ma juum yam tam sir juuf gim yeddam Sëriñ way naa leen yaare jam séeréer rajo yoon way naa leen waa yaare jam gim ye jokkel ngome wiima ngome ndupeyaade jokkela njaareem gima ngome yaare jam surayam ki man un la naa wong wongom sahala yam ki man naa seereer rajo yoo yaare jam Yanga dugu dugu wagan xañit wagan wagan kumba sanjaan tinda ndang rajo cosaan u seereer mari ngoone xëy simnaa nun mari ngoone biram penda wagan dugu dugu wagan xañit wagan wagan kumba sanjaan fay boo jam di ko na jam